jërë ngeen jëf mbokk amateur yi jërë ngeen jëf yéen ñuy siiwal si Thioker TV si du mag bi kon lu ñu leen koy waxee woon rek Thioker TV fu na lay wër fu na lay dem tey nag ñu ngi fii si Malika Malika nag bu nga waxee tey kenn xewle si njabootu làmb kenn xewle koo xam ne dafa bokk si làmb muy Bébé Saloum ba mu xewlee nag ay mbokkam ay xaritam teew kii ñu toogal mooy Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 képp ku xewle si àdduna ak fu mu munti doon dafay teew Sénégal sa nañ koy bàkkee na ko yorul jukkoy mbër ndax xol baa rafet xol baa sell moom lañ toogal na si ngénte Bébé Saloum mais occasion la tey fekk ko fii jox ko micro partager ak moom waxtaan ak moom dañuy waxtaan si lu yaatoo yaatu xuus si lu teewaayam tey si ngénte Bébé Saloum bi dañ koy bu nuyoo ba pare Alioune Seye 2 waaw am maa lay delloo ziar borom Pikine waaw di sant yàlla julli si yonent bi rek di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kabaroo borom Daaru Salaam ak Gaawaan mu defal leen tawféex defal leen taysiir ba lépp li nga xamante ne yenn na bi yenn bi yenn na ko rek sunu borom oyofal ko ci barke Seydina Mohamed di bëggee ñëpp di kontaan ci ñëpp waaw di bëggee sama doom day bébé Sall mi nga xam ne tey moom laa ñëw xewam dem contentement ak mbégte bu baax ci teew ci bisam ndax moom suma suma suma waay la sama mbokk taalibe la ñoo bokk bëgg Sëñ Fall kon si xewet la c'est normal ma teew fi xam nga jàppale ko si bisam daal ndax nit amul lu dul bisam. Hmm. xam Alioune Seye 2 xam ko moom si xolam bu rafetam si xolam ak yow sa diggante ak bébé Saloum commissaire bu nekk seen diggante. waaw ànd naw la rek ànd ànd bëgg sëñ tuubaa rek bokk loo xam ne ñu ko séddoo muy sëñ Fallou wax dëgg yàlla fu ma gis rek xam ma ku dem ba ose taxaw si nga nekk mbër ma nekk mbër mu ne duma ma bëri Alioune Seye numéro 2 ndax Baye Fall la xam nga loolu tamit dara fayu ko man bu xewlee bisam ak lu ma mënti jàpp dama ko war a bàyyi teewal ko ndax loolu loolu loolu loolu maanaam ñi mën loolu di ko wax bariwul ba tax na xam nga loolu dama ko ci sant bu baax a baax di ko gërëm ne wax ne xam nga baax gi ñuy wax ci moom du ko wuyoo du ko wuyoo bu baax a baax a baax du ko jëfee du ko wuyoo kon ñu ngi koy ñaanal sunu borom defal ko tawfiq ak taysir bébé bi sunu borom defal ko wér ak gudd fan ba mu màgg ba tekki teral ay waajuram ci naa ma Mohamed mais bébé daal nit ku baax la daal. ay géntem bi mu tombeek kasu rajab gi weeru kasu rajab mu tuddee doom yi sëñ Fallou seetlu nañ baat bi ku wax rek ñaari baat dina tudd alin Seye waaw ah ni may tamit am na si loo xam ne de du maanaam du njàmbaar daal ndimbalu suñu borom la rek suñu borom mooy xool nu mu ko neexee rek mu defee ko noonu xëy na waaw <laughs> muy noonu daal loolu sax day di si man trop mais nag am na loo xam ne moom mbiru sunu borom la dañ koy sante yàlla bu baax baax a baax ndax mënoon na maa xiir ma nekk ci leneen tamit mais comme yàlla dimbali ma sax ñu may nji bu baax donte baaxuma ma sax dama koy sante yàlla bu baax a baax a baax waaw di rafetlu tamit ci weeru rajab bi ñu nekk nii di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni ñuy waaj kas rajab bi suñu borom kàttan leen ñu dem ci jàmm ñibbi si waat jàmm turandoo bi nga xamante tamit moom lañ tuddee sëñ Fallou dama cee kontaan loolu barki sëñ Fallou bi ñu tuddee léegi léegi léegi rek ne sëñ Fallou lañ ko tuddee wallahi la asim xam ma jooy naa jooyu xool daal ndax man fi ma toll sëñ Fallou kenn mënu ko kenn mënu ko natt ah. kon dama ci am contentement bu baax a baax a baax barki sëñ Fallou waaw waa toog am na lu ma yóbbante woon démb seen na ma démb mu a ma am wax ma Alioune Seye kañ lay takk soxna non léegi rek incha allah yàggatul léegi rek incha allah loolu moom xam naa ne moom gars yi yéene nañ ma ko quoi waaw ma soon naa lool son naa lool son naa lool ci ay kii mais nag yàlla baax na lu jot rek yàlla def ko ah. waaw lu jot rek yàlla def ko mais ñu yooyu bëgg di ko mëbët bu baax a baax a baax di ñaan ñëpp ñaanal rek sunu borom mottali ko si barke Seydina Muhammad hmm. ku ne xam ne Alioune Seye 2 raxam dafa jëm si bis dimanche muy ñaamu ndaw ku ne xam ne Alioune Seye 2 digganteem waa Géejawaay ku ne xam ne Alioune Seye 2 doo mës a dégg benn mbër jël micro mu ne Alioune Seye 2 man ak moom règlement de compte la gis naa ñëpp la tooñ sauf yow amul si Sénégal wër àdduna gisuma kuy wax micro te du wax si Alioune Seye lu rafet barki Démo Ndiaye jël naa l'an 2000 même chose tey ñaamu ndaw war a jëm si bis bu mag digganteem mook maa ngi koy ñaan suñu borom ba dimanche incha allah yàlla may ko boppam may ko ndam lu sedd guy te gaaw si barke sëñ Fall waaw làmb la làmb ji muy préparé comme yeneen làmb yi rek ñaa xale la wax dëgg yàlla ku bëgg li muy def la ku mën li muy def la ku ñeme entraînement la ku jox ay entraîneur am cëram la ku jox ay ñi nga xamante ñoo ko jiitu ci làmb ay cër wax yàlla kooku xale bu wekkee noonu dafa nekk ci écurie nag kooku doo def lu dul jàppale ko wax dëgg yàlla lépp luñ ci war rek def nañ ko di ko ñaanal yàlla ba bés ba rek yàlla defal ko ndam lu sedd guy waaw mais nag Zarko li ma ko yóbbante mooy dina xam ne cin bokk safin waaw ña doon bëri di leen ruubeeg ñaawu ndaw bokkuñu ñaaw moo gën a féete xale donte ñu doon bëri ay xale lañ mais ñaaw moo leen gën a féete xale fuuf bokkuñu sax te daa am lu ne si ñaaw loo xamante ni gars yi xamaguñ ko ba léegi te ci kàttanu yàlla dimanche day leer waaw incha allah. boo nee ko ñu na a ruubee ak Niang bu Ndaw bokkuñu c'est-à-dire am ngeen leen préparé ko ci combat bi muy jógee liir ngeen ko. pare fépp pare fépp ndax tey boo gis dalee jàngal ëllëg te gis nañ ci ay combat am gis nu muy nu muy nu muy nu kon pare nañ fépp ci kàttan lu mu baax ñu ngeer ko. Hmm. Zarko bëreeg moom est-ce que yomb na. waaw yomb na yombul xam nga làmb moom sa dëgg la ruubee mi def noonu ci làmb la bokk. Hmm. <laughs> déggul ma la wax. daa am ak ñoo xamee ne ruube da leen a gaaw a yóbbu bu dugg see rek bu dugg see si arène bi rek seen fit yéen xoolal nee na moom nee na moom mën na leen may tàq suba teel neuf heures ba cinq heures ngoon moom moomee non mais loolu xalaatam la rek ndax tey du moo la wax rek tey bés la suba bés la bés bu nekk la ca war a xew suba bu ñëwee ci quatre euh, dimanche incha allah dina xam ne ñoom doon bëril ak ñaamu ndaw bokkuñu lii kay maa la ko wax di ma dékkaat micro ci kàttanu yàlla moromu ñaamu ndaw waaw loolu xalaatam la xam nga ku jëm ci nga am combat yaag yaag diw doo fa nekk naan ay daf may lii daf may laa chaque jour rek yow loo loo loo yëkkati sa code ngay wax wala li koy déstabiliser loolu la ngay wax mais nag loolu moom c'est sa normal mu wax ko loolu loolu moom libre na ci pour wax ko mais du lu muy wax loolu looy war a am voilà. Hmm. Zarko ku a gis na xale yi bëri ak moom yëpp. ku mu jàpp sa ngemb daanaka booy xool làmb ji jeex na Alioune Seye 2 technicien la ñaamu ndaw am na chance nekk si woto Alioune Seye 2 tey na la war a préparer ñaamu ndaw bu war a ñëw si kaw ko Zarko Zarko nga xam ne xale bu mus a jàppante ak moom say mbokk dar nañ seen gémmi non Zarko moom wax dëgg yàlla ku waxal yàlla xam ne ndaanaan la ndax wax dëgg yàlla lu ne lu muy def nii kenn lu ne fàng la kenn du ko jeex loolu waaye soxor soxor nag wala lu mu bëreeg sama doom tamit du tee ñu wax dëgg ndaanaan la ndaxte bu new woon ndaanaan du yegg fi mu yegg si wala du toog année yi mu toog ba pare ñëwaat di def ay preuve nii kon ndaanaan lañ ko koy nangul baax mais dama ne la cin bokk safin cin ba ci nekk na muy safin ñooñ du ñu ñaabu ndaw ñaabu ndaw du ñooñu wallaay lazim waxuma lay day wax dama faral ñaabu ndaw wala dafa ne si ñun de mais gars yi xamaguñu ñaabu ndaw bu ko yàlla mayee boppam rek dara bañ koo gàllankoor ci kàttanu yàlla fu ñu dégg morom yi dañ ko fi dégg. gis amateur jox ñu ñaabu ndaw benn sens làmb ji. waaw c'est normal làmb boo gis mu taxaw rek day am favori am koo xamante ni duñ ko jox favori mais jox la favori teewul nag nekkul na yaay daan de wala yaa mën de dañuy am yaakaar ne rek yow yaa war yow yaa war a mën loolu la ñuy am yaakaar mais chaque jour nga gis favori boo xam ne dañ koy duma daan ko. Hmm. chaque jour yow yaa ngi ci làmb ji dund ko. xam nga jàpp ngeen yéen dimanche boo leen ñëwatee làmb ji leen jox bopp. incha allah ñu ngi koy am yaakaar ndax ñun liggéey nañ loolu te ñaa xale la loo ko tegoo mu teg ko ba ba tegoo loo xam ne sax moom doog ko teg kon kooku xam nga neex na gunge daal. waaw ñu ngi am yaakaar bu baax a baax a baax. Hmm. ñu jóge dugg si carrière Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 bu ñu arrière tuuti Alioune Seye dafa xaw a mën nañu tardé si làmb ndax Alioune Seye 2 day daan daaraan bu ne façon daaraan bu ne Alioune Seye 2 moom daan na façon daaraan bu ne mais pourquoi Alioune Seye 2 bu daana yenn daanaan yi dem beneen palier waat day taxaw fu mu taxaw rek lan la. non loolu du si man mooy mooy li may far di wax rek lu ne fànn kenn du ko jeex man damay def sama preuve yaa ko wax léegi di bëri di daan xam nga bu ma tuusee mu neex dañuy mobiliser comme gars yi gars yi dàq ñu ma bëri dàq ñu ma xeex su ma bëree taxaw fi ma taxaw c'est parce que ñi ma war a jël ñoo ma jëlul rek waaw gars yi ñoo ragal rek gars yi ñoo ragal nekk ay tapet. pourquoi nga ne ñu la war a jël ñoo la jëlul. no mooy loolu koy sa waay nekkul loo xamante dañ koy tardé wala ñu bëgg lu neex amateur yi wala ñu bëgg lu neex samay supporters ñi ma war a jël suñu ma jëloon kon ba léegi weesu naa fii mais da ngay ci gis koo xamante ni dañ naan la yàgg Alioune Seye nga ne du ma bëri moom pare dem jël koo xamante ni boo ko doonoo Alioune Seye sax du ko jël loolu ci lan la bokk. ci ragal ci waay ci tapet nga ma ci ragal la bokk wallaay laazim. gis nga daan Modou Anta na jox leen ma boobu Bombardier. waaw man bëree man su ma bëree foofu chaque jour wax naa leen ko man foofu laa bokk ci grand yi ñuy wax noonu ca laa bokk de comme ni nga ko waxee léegi tardement moo ñëw rek te loolu nawal sunu borom la du sama yaafu du sama ñàkk man du sama tàppet wala nangam nangam mais yàlla mooy ñëw ay dogalam lool dañ koy nangu mais man foofu ñuy wax ñooñu ñuy wax grand yi man foofu laa bokk. ndax ñooñu boo xoolee ñu si ëpp ñoo dëppandoo xanaa ay Bombardier ñoo mag ak yooyu noonu mais boo wàccee Bombardier ñi si yëpp suñuy morom samay morom lañ ñoo doorandoo ci làmb wala bu ñuy jiitlonte ay benn at la ñuy jiitlonte bëriwul daal ay génération lañ kon su ma bëree foofu noonu war naa fa bëre xëy na nag làmb moo am ay yaa ma neex yaay bëre neexoo ma doo bëre rek gars yi waa am bàjjen ñii am ay promoteur ñun yàlla dogal na amuñu promoteur mais yàlla mooy suñu promoteur lépp loo xam ne namm na ko suñu. yow géejawaay nga dëkk. lépp namm na ko suñu jëm. mais géejawaay nga dëkk. waa waaw Guédiawaye laa dëkk. am na promoteur bu fa nekk di tëgg ay combat yu mag muy alburax. waaw non ñooñu ñooñu ci ñun la ñu bokk mais maanaam comme ñi nga xamante ni tey dañuy am promoteur boo xamante ni da leen di téye ab maanaam voilà man aw ma loolu donte ñii Guédiawaye lañ dëkk dañuy liggéey may liggéey buñ ma woowee tëggal ma damay bëri ci kàttanu yàlla. Mhm. waaw alburax galaa bi ñuy tëgg nii tey bu na woon sa diggante ñu ne Alioune Seye 2 ak Coense. waaw non mooy li ma la wax man làmb moo fi bàyyi ñooñu ñëpp ay làmb la ay kiwen sax tudul moom sax man làmb moo fi bàyyi képp koo xam ne seeta si nañ ma mu raisonnable man làmb du tagee ci maan. su ñu la seet sa diggante Franc. non non amateurs yi ñoo ko bëggoon doon ko wax rek. mais toog Alioune Seye ñaari ndaanaan la ñu toog moom ñu laaj ko ba xam mosu ñoo dox ko mbaam moog Franc. non mosuñu ko comme ni ngay waxee rek amateurs yi ñoom ñooy kenn mënu leen nax ci làmb combat bu jaaru xam nañ ko xëy na kay daa am ay ay ajal rek comme ni ma koy waxee mais làmb ju jaadu rek xam nañ ko gars yi ña làmb ju ñu ñurumtu rek xam na làmb boobu war a taxaw xëy na kay mu des ci benn adversaire bi mais loolu méttiwul ñun ñu ngi fi pour làmb ku ma jëlu tey di nga ma jël suba. ku tey. ku ma jël ku ma jëlu tey di nga ma suba te wallaahi la aj affaire day gën a métti. day gën a jël suba. déggul ma la wax day gën a métti kay xanaa ku ma jël suba mooy gën a métti waaw. ba tax ñun amuñu leen luñ ci réguler ñu ngi nekk si lu ñu war a nekk rek saa suñu xëyee ñu ngi nekk ci entraînement yi ngoon ñu dellu ci lu ñu yàlla jagleel nag ñu jël te xam ne loolu mooy suñu cër waaw sama gis-gis bu ak sama xel bu gis naa mbëri fi des fu mu toll nii Alioune Seye am na koo xam ne war na jox Alioune Seye 2 mais gis naa fi ku mel ni ama neex Coins ak euh, Moussa Ndoye kenn ki moo la war a jox revanche ñaar ñii sa diggante ñoom ñor na bu ama neex moom génneeku ko ci ndax neen noonu du bëre man mais loolu tegu ko fenn ama ah, neex du bëre yow non yow laay laaj lu tax du bëre man ndax loolu bu waxee tegu ko fenn ama neex Alioune Seye 2 lam du ko dax moom moo taxoon ne bëriwul man loolu bu ko waxee tegu ko fenn yëpp ci xeetu ragal la rek te ama neex wallaahi la azim su ma doon bëri moom billahi wallaahi damay takk samay bët barki sëñ Fall bu fekkee ne yow ma samay supporter barki maam Seera Fall mën naa takk samay bët di bëri moom ama neex. waaye dama bàyyi nga naa may ama neex moo xam lu tax mu ne du bëri man. mais loolu méttiwul moom dong lu fi mbër su ma moom tamit danay bëre keneen. yow defoo si làmb lu tax ama neex war a mën a toog du bëre yow fu mu toll nii anay mujj yi yëpp li nga def si làmb performance yi nga def si làmb ama neex benn na xam du ma fi taxaw fii nii vocalisé wu ci naan ay ama neex ama neex comme taxaw na fu mu taxaw ne bëriwul ak man loolu méttiwul tey su bëriwul ak man tey suba mën na bëre bëgg bëre man làmb dafa yaatu loolu taxaw na ma du ma bëri diw. noonu tey da ngay soxla mbër mu ne la du ma bëri moom suba nga yóbbu nga toppaat ci ginnaaw gis nga fi mbër bu fi daan mbër ba pare toppaat ko naan ko kaay ma remel revanche kon laa làmb dafa yaatu ginnaaw ku ñu la waxee adversaire même boo bëréewut ak moom ne làmb la te xam ne yow yaa yor sa cëggal guy ku ñu la seetsee bu la arrangé nga bëri bu la arrangé wul bëri mais am na si loo xamante ni ñàkk respecté sa ñi nga nekkal la sax wala ñàkk respecté sa bopp la ndax tey koo ne taxawu ma bëri ma Alioune keneen ki war a bëri yow tamit na sañ-sañ ñu taxaw ne du bëriwul ak yow waaw ba tax na loolu du ma ci ma ci du ma ci sori loolu waxi mbër la rek waxi mbër la rek waaw mu ngi noonu mu ngi noonu mais loolu moom du ma ci Baye Ndiaye Alburax bu bëggee daal lamb yi neex ñu dugal la ci spécial diggante bala gay 2 ak Tapha Tine bi yàgg ama neex lamb du ko daax waaw non Alburax maa leen taalal sama loxo di leen wax ne ñun ci affaire lañ bokk nañ ñu tëggal waa mu ngi noonu ñun ci bokk nañ ñu tëggal ñëpp sauf yow de waaw waaw ah, sama ñam nañ la. non waaw bi ñu ñëwee ba léegi nag bëreegu ma bëreelagu ma leen. Ah, waaw bëre neex yi tëgg yow dañoo war a dëggal. waaw vraiment mooy yoon nag mais maa leen taal sama loxo rek. ñooñu moom on est. man maa bëgg waa Alburax tëggal Alioune Seye 2. mooy yoon mooy yoon mooy yoon. Koyen si Alioune Seye 2 ama neex Alioune Seye 2 Moussa Ndoye. waaw yooyu ay làmb la man daal maa leen taal sama loxo di leen wax ne ci bagage laa bokk nañ ma tëggal ma bëre waaw. mais lan la dóore yi moo tax boo dóor boo daanee tey da ngay toog kii bu yàgg bëre woo wala nu mu demee noonu non yow gis nga lépp am na si loo xamante ne xam nga du fi nekk di kii làmb ab bëre lañ wax ak dóor lañ wax ñii dañuy dóor ñii di bëre kon lu wér si loo xamante ne ñun ñun dañuy ñëw rek làmb la ñuy def luy gën a ñu def ko duñ fi nekk naan ay lii ay laa kon gars yi yooyu yëpp taxawul. ay kii day dóore kii day bëri dem tëngëj daa am benn boy bu ma dee xam ne dama fa am xarit tëngëj ay Ibra Gaye bu gàmmu gay ñooñu sax waay lañ mais dañ ma dee na ma kii Alioune Seye 2 dóor bu muy dóor si suuf noonu épicule bu muy dugal ak ak boo jugee wukki bu muy wukki moo tax mbëri di xaw daw waaw no mooy loolu mooy loolu barke sëñ Bamba xam nga rek. non xam nga rek dooree ngay wàññi tuuti <laughs> jël la. doon nga fi Issa Pouye mu daanu ñu yaakaar noonu nga door fi sos loxo bi dam ñu yaakaaroon fa lay yem nga jàpp fi Mourou Anta tamit def ni nga def. mooy loolu mais sant yàlla rek ñun daal ñu ngi nekk si lu ñu war a nekk waaw am ñoo ngi nekk si lu ñu war a nekk rek gars yi maa leen gën a rakkaaju fuuf nga wax yow gars yi ne da ngaa yor boobu ëpp yaru bi ngay bàyyi ngay wax Alioune Seye 2 ah, maanaam maanaam làmb ku fi nopp dañ lay fàtte tey da nga am na nga def si làmb question dañ kii man fu ne wax naa fa site internet bu ne jël nañ ma ma wax su ma waxul si site internet fan laa war a waxee waat aha war naa wax naa li ma war a wax yëpp ñi war a jël ñoo war a ñoo ma war a jël ma bëre ba dëgg yàlla foofu loolu moo fi des quoi ñi bëre war a bëre bëre seen biir mais tapet ragal di ut fu ñuy làqatu yàlla baax na tolluwaay làmb noo ko gisee tolluwaay la baax macha allah instant bi moom wax dëgg yàlla nit ñee ngi bëree waaw grand combat yi ngi taxaw mu ngi neex ñu ngi bëre xam nga combat yu ndaw yi tamit mi ngi taxaw gaa yi ngi bëre muy neex kon wax nga làmb noonu la war a demee rek warul taxaw quoi ndax ñi yaakaar si làmb dafa bëri. Hmm. noo gisee grand contre petit yi grand ah, combat petit tamit macha allah làmb noonu la war a demee rek mbër bu mag boo gisee mbër bu ndaw moo koy folli comme ni ñuy jaxasoo suñu biir nii mooy tax booy ñuy am sens ndax ñoom ñu ne ci kaw nii seen i moromu mag lañ bëre woon tey ba ne ci kaw kon suñu bëree seen i mag ba seen rakk ba ba seen rakk war a ñëw tamit noonu lay demee rek affaire moom xam nga noonu lay demee ko ñoo tëj naan laaj ñaari combat diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène. waaw combat bu neex la di ñaanal yàlla Sa yàlla may ko ndam lu sedd guy te neex. kooku sama rakk la sama xarit la mais combat bu neex la wax dëgg yàlla combat bu neex la combat boo xam ne waaw bu ci génnee am na fu mu ko mën a yóbbu fu bëree bëri bëri ndax doon moom doonte moom tamit yàgg na ci yoon mi waaw amoon tamit am na fu mu war a yegg ci fi gaa yegg kon mu ngi noonu daal. Hmm. diggante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine. waaw diggante Balla Gaye 2 Tapha tamit loolu revanche la combat bu neex la waaw ñu ngi ñaanal Balla Gaye yàlla defal ko ndam lu sedd guy ci neex par Sëñ Fall waa hmm. tey looy tàggatoo. waa di tàggatoo di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di ñaanal bébé Saloum suñu borom defal ko tawféex mu yokk wërsëgam bébé bi tamit xam nga màgg tekki teral leen ci barke sëñ Fallou di leen bëggee ñëpp ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di bëggee waaw di bëggee sama supporter yëpp fépp fu mu mënte nekk rek ñu ngi leen di bëggee di bëggee waa ikir waalo bi yëpp leen ñaanal jàmm sutura tawféex di bëggee ñëpp Aziz noonu la demee woon ñu ngi fi amoon Alioune Seye 2 ni ku baax ni ku yaru naka mbëri jël nag mais Albourakh Events dama bëgg ngeen tëgg sama waa ji kii dafa jot mu bëre te tey ku ne xam ne Alioune Seye def na lu ne si làmb ku ne xam ne Alioune Seye 2 ne ku ne mu bëre si tey jot na pour mu dugg si gars jot na pour mu bëre si gars kon li may wax rek làmb doo ab maaf ab dabante la tey koo bañ tey ëllëg mën nga ko bëgg kon làmb bu kenn taxaw na a bëreel nga bëreel